éducation xam nga lu mm. tax ñu say wax tey nii école la ngay waaja a tëj mm-hmm. mami mm-hmm. école ngay waaj a tëj mm-hmm. nab école la ngay waaja a tëj abri provisoire yi man defoon naa dina jeex deux mille vingt deux tey la wàllu gën a aay léegi nag daa am la si xew effectif pléthorique yàgg na si sanu école yi yàgg na dëgg yàlla ay classe su personnes wala lu ko ëpp Mm-hmm. élèves yi toog par trois jàng mi sooke muy mm-hmm. sooke nga gis élève boo xam ne day am ay prédisposition <coughs> mais du bëgg ci njàng mi dara parce que environnement bi mm-hmm. ak contexte bi moo nekk arrangé wu ko loolu nag nguur <coughs> ci jamono bi fi parti socialiste nekkee am na nu ñu ci taxawee woon waaye desoon na Ablaye Wade bi mu ñëwee sunu maam boobu yokk ay école yokk ay classe mm-hmm. def na ci liggéey bu mucc ayib ba yaatu <coughs> bi président Macky Sall ñëwee nag mu def ci li mu si mën mm-hmm. waaye la ci Ablaye Wade def si <coughs> kenn defagu ko si loolu benn la mm-hmm. bi si des mooy <coughs> le mal de de de de la pléthore d'élèves ci benn salle de classe li moo jur day tax jàngalekat bi sax motivation bi mu war a am ci kenn ku nekk du ci du ci du ko am du ci sawar jàngalekat bi dina ñëw def liggéeyam parce que daf ko war a def waaye pléthorique effet effet pléthorique boobu yokk na ñàkk motivation wu jàngalekat bi gannaaw boo ci tegee li ñu kaa fay demeewul noonu euh, condition yi moo nekk pour def sa préformation sa formation ba ak si foofu demeewul noonu résultat <clears throat> jàng bi sooke examen yi catastrophique dans les écoles privées le mal est moindre tane na tuuti parce que peut-être foofu ñoom ñu ngi ci beneen contexte beneen réalité ba nga xam ni élèves yi nga xam ne dañoo fay dina leen permettre ñu am <clears throat> existentiel ba tane mais dans l'ensemble tout ce tralala la am na kenn koo xam ne moo kaa organisé mooy le ministère de l'éducation nationale mm-hmm. jamono bi sunu baay bi sunu kilifa bi Mamadou Talla moo fa nekk. Mhm. moo kaa géré. mu ngay def li mu mën. dëgg yàlla mu ngay def li mu mën waaye li des daa bare li des nag nguur moo ko siy dimbali moo di <clears throat> danoo am quatorze régions. yaa mhm. Seyda. Mhm. région ba nekk ba amee ay écoles ya doy am classe ya doy effet pléthorique ba du exister wante bu fekkee ne que sa population mu ngi yokk. te say école yokkuwul say classe yokkuwul semaine passée defe naa fii la soose taxaw di nettali mbiru Gossas. Mhm. école bu def dix ans tabaxuñ. Mhm. yooyu bokk na ci li sookeel mbir mi donc tey <clears throat> li nga xam ne mooy secteur clé di jàng. Mhm. ak jàngale. nekk lu capital. baax na tey nguur bi gëstuwaat foofu. corrigé waat côté boobu. parce <clears throat> nekk la ko sonal. lu ñu sonal. muy jur une société boo xam ni sa jeunesse ñi nga xam ne ñoo ëpp ci population bi. seen li leen di permettre nit ñi ràññee leen ci lu baax. ñoom ñu ràññeeku ci daa des. loolu daal ci jàngat nekk na loo xam ni lu nu lu nu lu metti la loo xam ni bëggoon nañ ci waxtaan tey. nekk sunu classe yi élèves yi dañoo bëri. te loolu dafay sookeel jàng bi. jàng bi. merci Passane mami très rapidement bu ñu ndax ndax war nañu toll fu ñuy waxee effectif pléthorique au Sénégal boo gisee train de vie bi état di mëne ndax waruñu gën a mën a saytu condition yi élèves yi di jànge bien sûr évidemment que dañu war a gën a saytu conditions yi élève yi di jànge mais surtout Euh, pa Assane wax na pratiquement li ci li ci gën a essentiel euh, fi nga xamante ne juste xëy na peut-être fa lay gën a insister mooy euh, état bu Sénégal jéem a def de telle sorte que vraiment budget yi nga xamante ne alloué nañ ko ministère de de l'éducation bien que du sax seulement la préoccupation de la construction des écoles moom mooy xëy na à la limite priorité ci wàllu boobu secteur mais ñu gën a fexe ba tabax plus d'écoles mhm. lu ñuy gën a tabax ay écoles Euh, li nga xamante ne moom mooy nombre d'élèves yi nekk ci yenn classes yi mhm. dina xaw a gën a mën a wàññeeku tuuti euh, surtout nag établissement public yi parce que établissement privé et encore il faudrait que ñi nga xamante ne ñoom ñooy sa ay parents sa ay wayjur yeneen yu ni mel ñu am moyen yuñ la mën a fayalee ci école yooyee nga mën fa dem mën faa jàngi mhm. euh, mën faa sàkku ji xam-xam mën faa jëlee loo xamante ne dina la jëriñ te foofu c'est beaucoup plus organisé comme ni ko Pape Assane waxee mais par exemple les établissements publics nga xam ne bu ñu fàtte ne établissement public yi élèves yi nga xam ne en général ñoom ñoo ci ñoom ñoo ci gën a xare ñu ci bëri ci établissement public yooyu la ñuy génne mm-hmm. ñu ci bëri foofu la ñuy génne ab euh, via une formation ak yenn système d'enseignement yi nga xamante ne dafay xaw a tuuti euh, donc il faut construire plus d'écoles et sans compter que li nga xamante ne moom mooy euh, élèves yu bari yi ñuy dajale ci biir classe yi pour professeurs yi dafay compliqué pour que kenn ku nekk ci ñoom ñu mën la assurer suivi bi nga xam ne moom la Euh, ndongo daara googu soxla moom la élève boobu soxla ci ñàngatam parce que élèves yi lu ñuy gën di bëri professeur bi day bëgg ñëw dispenser benn cours général rek day mel ni comme boo nekkee euh, université Cheikh Anta ku nekk li nga jéem a for da nga koy jéem a for rek mais en en réalité doo mën a def suivi pour chaque élève évaluation également pour chaque élève pour que niveau de compréhension bi euh, mën a mën a mën a ñoŋ bu baax donc vraiment et c'est pas très avantageux pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy sunu ay doom yiy jàngee ca yooyee école euh, nañu fexe daal ba gën a gën a gën a taxawal ay établissement scolaire yoo xamante ne classes yi danañu gën a bëri mm-hmm. à la limite dem ba tollu benn niveau boo xamante ne dañuy exiger ci établissement yi ak ci classes yi nombre d'élèves limité bu leer na le classe bi par exemple warul dépasser plus de 30 wala plus de 50 élèves classe bi warul dépasser plus de plus de plus wala plus de 55 élèves nga xam ne limitation boobee mooy permettre euh, suivi bi xale bi soxla prof bi wala metre bi mën ko ko jox de manière très organisée et que ñëpp dañuy yem au même niveau parce que bu ñu fàtte ne bu classe yi feesee rek ñëpp dootuñu ñamati au même mm-hmm. niveau ñii dinañu avantagé ñii dinañu xaw a désavantagé tuuti alors que nag comme euh, secteur de l'éducation bokk na ci les secteurs clés d'un gouvernement euh, ci maanaam aire bi ñu mm-hmm. toll nii mm-hmm. war nañu dépasser ci Sénégal stade boo xamante ne ba tey am na ay abri provisoire yoo xamante ne xale yi dañ fay dajaloo nekk ay centaines war a mennum njàng ku ci nekk di xool nan ngay def pour mën a tirer sa épingle du jeu euh, ba léegi nii am na ci ay écoles yoo xam ne bu nawet wi ñëwee par exemple yenn classes yi dootuñu leen mën a utiliser ti te yooyu itam bokk na ci li yokk yenn effectif de mhm, classe yi mhm. parce que dañu obligé tànc leen ci benn espace boo xamante ñoom ñëpp fa war a jëlee xam-xam te doon na loo xam ne war nañu ko mën a prévoir avant ñu caa yegg si parce que n'en parle plus euh, des des problèmes des effectifs yu yu bëri ci biir classe yi dajaloo fa ci yenn condition wu jàng yi nga xamante ne vraiment c'est pas favorable ci ñu war a doon ëllëg euh, njëriñu réew mi. merci mami euh, très rapidement Passane ñu wax ci les abris provisoires taw baa ngi ñëw saison de pluie baa ngi ñëw. y en plus de six six mille au au Sénégal. Mm -hmm. je pense bu ma daaw jékku daaw. et <clears throat> l'état du Sénégal avait promis qu'il allait en finir. bon malheureusement euh, pff, affaire bi avancé wul. Mm et ça continue alors euh, quelqu'un me dira le budget national euh, consacré à l'éducation du Sénégal si jamono au temps de Wade dañ doon wax naan. 40 mm. pour cent du budget et cetera maintenant ni nii nii si jamono bi ci président Macky Sall le président dira toujours que il fait plus que les ses précédés prédécesseurs. Mm sauf que dans la réalité. Mm-hmm. lu ni mel donc aujourd'hui lenn rek moo mën a tax données bi évoluer changer dans un dans le bon sens mooy nguur bi jël une décision ferme ne lii la ma def laaj leen waa université du Saloum fu euh, seen bâtiment bi toll seen projet bi toll. Mhm. Euh, université euh, Amadou Mahtar Mbow bu ñu doon wax fële sa jëm ñaajo mhm. et cetera cetera <clears throat> malheureusement en terme de projection l'état du Sénégal en a tellement en termes de réalisation. c'est la Et quand on le di ils nous disent, vous râlez trop, vous passez votre temps à parler, xamu li ngeen di wax dem leen ngeen gëstu ba xam li ñoo wax lu mu doon mais li loo xam ni jarut a gëstu da kaa gis ni la xam ka compliqué wul abri provisoire mooy li gën a représentatif ci seuil de mooy li nga xam ne moo lay wan na yow sa dëkk li nga xam ne moo lay permettre nga génn maanaam sa réew. émerger bu dee da ngay wax émergence. Mhm. mooy jàng. Mhm. sauf que jàng bi sax buñ si taxawee. ban mhm. façon jàng la. lan ngaa jàngale. nasaraan moo ñëw indi aadaam indi mode de fonctionnement am indi léppam indi même sens de civilité moom na mu ko gisee. ne la jàngale ko jël ay réalité moom histoire na mu ko falsifié na mu koy nettale ne la jàngale ko say jàngkat say boroomi xam-xam yi jàngul daara. jàng jàngum nasaraan jàpp ne ñoom. ñoo ñi nga xam ni ñoo la ña civilisé ñi mm-hmm. ña civilisé ñoom jàpp ne ñu ngi ci benn niveau bi ba tax tey mm-hmm. ku xool Sénégal 60 ba mille vingt 2022 mm-hmm. ñooñu nga xam ne nasaraan moo leen jàngal ñoo ko jiite fa mu teer si fii nu toll ni tey mille 2022 deux ans après sa réew ñu ne la am nga plus de 6000 abris provisoires ci koo xam ne nee nga da nga bëgg émerger maanaam nasaraan bi nga xam ni jàngal na la tariloo la gëmloo la moom la mu gëm te la mu la gëmloo nag li si gën a garaaw xulil li si gën a garaaw mooy moom la mu laa jàngal gëmu ko looloo gën maanaam nasaraan fi mu la teg moment bi mu la naan jàngal germinal Émile Zola nga kaa liir la tari seetlu leen bu baax sunu borom xam-xam yi bari na lu ñoo tari léegi citation sax ñu ne la Platon nee na wala Descartes nee na je pense donc je suis. Mm-hmm. Mm-hmm. ka nekk aw jàpp nga ni baa ko waxul amoo xam-xam. Mm-hmm. mais pour wane xam-xam faw nga ne Descartes nee na. dégg nga wax bi. maanaam da nasaraan dafa désacraliser yow sa gëm-gëm. wax mukk ne la coach Barma a dit coach votre grand-père il a dit Amady Ndak il a dit. maam Xaadimu Rasul Cheikh Ahmad Bamba votre guide religieux il a dit. dégg na la wax bi. Mhm. est-ce que comprendre nga. donc ñooñu moom daf leen di éliminer. Mhm. teg leen de côté. Mhm. que voilà c'est rien du tout. gëmloo la bosam mais bosam bi mu la gëmloo objectif bi xam lan la woon. nga di liggéeyal c'est le prolongement maanaam ñun sanu jàng c'est le prolongement de l'impérialisme. impérialisme boobu nga xam ni tey buum boobu moom la Mali dagg. moom la Tchad dagg démb ak bërki démb moom la Centrafrique dagg boo demee ba Tchad yee jël drapeau russe teeg ne voilà on en a marre ça veut dire beaucoup de choses donc mhm. tey suñu jàng muy mbirum abri provisoire muy mbirum école pléthorique yi classe yi muy mbirum situation jàngalekat yi mhm. dafa laaj rupture drastique mhm. ak recrutement enseignement yi sax d'ailleurs les enseignants d'ailleurs oui mhm. parce que ñoom tamit il faut ñu yokk seen seen seen ay pour que ñu mën a am assez d'enseignants mhm. dans les écoles mais surtout des enseignants de qualité s'il vous plaît aussi c'est très important